boo ko fàtte woon mbaa nga tële ko ren mu daal lay wàcc niki boo fàtte woon bu julliwaale sobe julli nga baax na boo fàtte woon bu sangoo sa awra gannaaw ba nga sëlmale nga jël ko rek julli nga baax na yëpp dañ ñu sopp rek ko baamu waaye ni ma ko nag boo fàtte woon a jàpp julli ba noppi door a fàttaliku ne jàpp woon du tax julli nga baax dañ la jàppal fàtte ko woon doog nañ ci ne nag bu fekkee ni waxtu jot na waxtu julli ba waxtu jeex te amoo woon loo jàppee amuloo loo tiime su boobaa boo ko julli wàcc na la tafriixu naasiha banqaasug aji fàtte seen maanaam àttub aji fàtte seen waxaa jisin ak aji lot kafiran aji bari la nen nag yoon nga xam ne moom fàtte ba ak tële dana ci soppi àtte ba nen àtte ba xaw naa yaatu waaye nag mas na koo takk ci ne mu lay bëgg a wax mooy yooyu yi daan danañu baamu nat ban ci sopp bi waxtu ci waxtu kon nga delloo ko ci ñaar ki julliwaale sobe ak ki ñàkk sàng awraam bu fekkee da ko fàtte mbaa da ko tële su boobaa dañu bëgg rek ñu baax mu ci waxtoo ñun baax mu ci waxtoo julli nga baax na su waxtoo jàllee lu aajo ba amoote kal xataa ni ki mooy ga fii xibla ci xibla boo dee julli nga xibla ba sëlma doo koo fàttaliku ba tey julli nga baax na dañu bëgg rek nga baax ko te julli la su fekkee laata ngay sëlmal nga ko fàttaliku ne ñu seet su fekkee ne gumboyoo te la ko mooyee daa bari kon faa war ngay dagg tàmbaliwaat su fekkee la ko mooyee bariwut ñu jéggal la ko nga wàññeeku ko rek jublu mu daal di baax bu fekkee da nga gumboo itam ñu jéggal la ko ndax ñàkk a mën a gis laa xaj si haa waxuñu ak wattam moom xibla aw xitaa wala wattu ca muuraay ga moom daa bëgg wax ne bu fekkee ñàkk nga ñàkk jublu xibla ak tëli kon gannaaw ba soo itam du tax ñu sopp ci yow baamu daa bëgg wax ne itam sàng awra bu fekkee da nga ko tële woon ko woon kon gannaaw bi boo amee loo sàng awra itam du tax ñu sopp nga baamu waaye loolu nag daa mel ne coono ci des waxuñu loolu ñoom dañuy wax ne ñoo yëpp yam su fekkee ganaar ba mën nga te mënoo woon du tee ñu bëgg nga baamu julli ko ci waxtu wa sàng awra it noonu la bu fekkee da nga ko tële woon gannaaw ba nga am loo sàng awra it ñu bëgg nga baamu ko ci waxtu wa wajjal xorrati lu dul xar kanamu gor su jigéen wa kaffal xorrati ak tengal gor su jigéen yeejubu dana war satru ko ak suturaalam kama fil awrati naka mu nekkee ca awra ja day bëgg a ràññeel nag lan mooy awra ba ci bokkul ba jëru sàng mu ne bu dee jigéen joo xam ne gor la ndax ba ñu taalif téere yi booba gor ak jaam yaa yëpp daa am léegi bu dee gor su jigéen nag moom yaram yëpp awra la ba mu des yaar muy kanam gi ak teng yi lu bokkut ak loolu rek war na koo sàng bu dee jigéen nag moom moo góor ñoo yemoo awra ñu tàmbalee ju ndox ba ci bëti woom laakin waaye tox yi du dana baamu moom jigéen ci waxtu ci waxtu wa al muqarrar wa di wuñu saxal la daa kashfin fa ak wuññ li sabadin ñel ab dënn aw shaharin wala kawar aw tarafin wala cat cat mooy cati loxo mbaa cati tànk nee na jigéen buñ nee ko sa yaram yëpp awra la boo julli war koo sàng ba mu des say kanam ak say tenq moom na ba mu julli boppam mbaa baatam mbaa ay loxoom mbaa dënnam mbaa ay cati tànkam dara di ca feeñ su boobaa julli ga dina baax waaye dañ koy wax ne ko na nga ko baamu ci waxtu yi mooy su waxtu yi jeexut ñu bëgg mu sa mu nañu war a sàngoo ko defee baamu nag julli ga bu dee góor na moom awraam moo tàmbalee jumbox rek ba ci pëti woom bu fekkee waxu koy itam mel ne ni mën nañ loolu shartu wujubiha sartu waram nga an maqaam moo di set mën a dam ci deret bi xassatin ci ak ñooy awul jufoo fi wala ak fendi faalam na nga xam maanaam sart booy tax julli war la bu dee jigéena mu bañ a amee dereti mbërëg bañ a amee dereti wasin waaye su amee dereti mbërëg mbaa dereti wasin julli wàcc na ko araam na ci moom mu def ko te bu ko defee itam lu baax su ko defee nag dalay wax li ñuy xam mooy set ga ci deret bokk na ca li ñuy wax ñooy mooy ndox mu weex moom nga xam ne jigéen ji bu deretam day jeex day gis ndox mu weex muy génn ci ab sawukaayam kon bu gisee loolu tegtal la ci ne deret ji jeex na wala fendi fendi mooy mu dugal ab morfo ci ko xool te deret ba tey loolu tegtal la ci ne kon deret ji jeex na deret jooju jeex na mooy tax julli war ko waaye bu fekkee deret ji jeexul julli waru ko fala xadaa jotug fay ayaamahoo fani deret ja nee nag bis yi nga xamee ci la gis deret moom jigéen ji julli waru ko ca araam na ci moom tey du ko fay bu dee koor nag moom du koor waaye ko fay moom koor ga julli gi nag moom du ko fay suma du xool waqtin topp tàbbi waxtu fa aqul danaa wax ne ab dihaa na nga jox julli ga bi ci moom xàttuman ci lu war bokk na ci sart yi tax julli war la waxtu wa jot su fekkee waxtu wa jotut kon julli waragu la bu fekkee timis jotagut waragu la te it boo ko jullee te timis jotagut ba wenn waxtu nga julli ko te jotagul def lu araam sunanuha ay sunaa moom julli ar suuratu mooy saar wa baxdal waafiyati ci gannaaw faatiha wala nga ne baxdal waaqiyati muy alwaaqiyatu ji firi aji fekk ba tey muy ci gannaaw faatiha rek maxal xiyaami ànd ak taxawaay ba awalan ci ràkk bu jëkk wathaaniyati ak juróom ñaareel wala wathaaniyata awalan ci ràkk bu jëkk wathaaniyata ak juróom ñaareel ina saa yi ngay jàng ci gannaaw faatiha ci ràkk bu jëkk ak boob ñaareel saar woowu sunna la ab taxawaayam itam sunna la bu dee ci julli farata yi ràkk bu jëkk ak boob ñaareel balaa faatiha day amu saar ba tey boo jàngee lu matutu saar niki laaye wala lu ëpp laaye itam ba tey mu baax jahrun ak biral wa sirrun ak yalu bi ma xàllin ci béréb laxumaa ñeel leen ñoom ñaar maanaam fan diggale wax ca kaw nga wax ca kaw niki ñaar ràkk njëkk ci timis ak ñaari njëkk ci gee ak ñaar ràkkay suba ak ñaar ràkkay ajjuma yépp nga wax ko ci kaw sunna la yellu nag mooy fu ñu la digale wax ci suuf nga wax ci suuf nit ki boo dee julli tisbaar lépp yellu la takkusaan lépp yellu la timis rakk ba ci mujj géeye ñaar ñi ci mujj loolu lépp nga yellu ci sunna la takbiiruhu aku kàbbaram illal la si ndaray kàbbar ga nga xam ne taqaddama jiitu na allahu akbar yi am ci julli yëpp ba mu des bi ngay njëkk a wax yëpp sunna lañ bi ngay njëkk a wax nag moom farata la mooy kàbbaru armal comme tashahudin ak jëpp taaya jëpp taaya moo xam ji jëkk moo xam ji ñaareel la waaye taaya yëpp daal suma lañu julloo san akub jataay awalum bi aji jëkk maanaam daa bëgg wax ne taaya bu jëkk bi ab jataayam suma la waxtaan yi ak bopp ñaareel ba tey ba a sëlmal rek la jublu ci bopp ñaareel sunna la waaye nag laa xam ne yaxsulu dana am bu njëkk bi muy bépp taay boo xam ne roocaa bu njëkk moom taay ja sunna la jotaay ba sunna la buñ ne jotaayu ñaareel dañoo jublu jotaay ba nga xam ne ca nga nar a sëlmalee moom nag ay mbir da caa tase jëmmi taaya ji ci boppam moom sunna la ab jataayam sunna la waaye foofu daa am julli ci yonante bi julli ci yonante bi sunna la ab jataayam ba tey sunna la dafa am ñaan ñaan ko boo ko mënee ci arab ñu sib nga wax ko ci leneen lu bokkut arab waaye bu fekkee mënoo ko ci arab moom ñaan googu mën nga wax ci làmm yo nga mën ñaan ko dañ koo sopp ko defee jataay bi itam ñu sopp ko mu am itam asalaamaaleykum sëlmal te xam nga sëlmal farata la kon na diir ba ngay waxe asalaamaaleykum nga toog ko ba tey farata lay doon loolu moo tax boobu jotaay moom ay mbir mbir tasa ca wa samiha allahu liman xamidahu ak wax samiha allahu liman xamida firaaf yi ca siggi ga min rëkkoo yi bàyyi ko ci ab rëkkoom aw radaxoo rotal na ko maanaam dana ko def rek alfaz kenn wal imaamu ak ilimaan yàlla wax ni samiha dégg na allahu yàlla li ma ñeel ka nga xam ne xamidahu sant na ko maanaam loolu boo siggee ci rek ko nga wax ko te fekk ngay ilimaan nga xam ne mu yow dong nga xam ne ci rek ko wax samiha allahu liman hamida sunna la waaye bu dee maamu nag moom du ko wax benn yoon daañu wax maamum lan lay wax hada lii ukki da fedd leef na ko nee na lii mu la jot a wax ci ay sunna mooy sunna yi nga xam ne ñoo feddliku ñoo dëgër wal baax yi aji des ja kal mu ngi mel nekk lu ñu sopp man nga ne wal baax yi ja badaa feeñ na kal man doobi mel na lu ñu sopp fi yokk mu ci àtte di des ci sunna yi moom nee na moom man doob ñoo yemoo nga xam ne boo ko bàyyi itam deesu ko sujootal yi nga wees nag mooy sunna yi nga xam ne sunna yi ko nga xam ne bàyyi ko dana tax a sujoot sujootu jamooc yoo ñële yi nga xam ne dañoo mel ni rek lu ñu sopp iqaamatul liqaam liqaam da koy boole ci yi ñu sopp maanaam sunna yi nga xam ne dañoo mel lu ñu sopp waaye sax boo ko deful te te ko maanaam boo liqaamu te ko julli nga day yàqu waaye jooju wax moom dëgërut ca dëgg-dëgg boo ko ko def ko mu a wóor sujjoodu ko ak sujjootam xalal ci yaari loxo ya wa tarafir rijlay ni ak catu ñaari tànk ña nes lu rukk ba tey ni kem ñaari bëtiwam ya maanaam bokk na ci sunna yi boo sujjóot sa ñaari loxo nga teg ko bu tolloog say nopp say bëtiwam nga sukk ko say cati ñaari tànk man da cee jublu cati baaraam yi baaraam yi samp moom itam kon booy sujjóot nga def noonu xam bëtiwam yi sukk na ñaari loxo yi teg nga ko fa tolloog say nopp joti baaraam yi samp na loolu sunna la boo dee sujjóot imsaatu muqtadin ak xerawluk ajuroy nga ne celleerluk ajuroy bi joxurin ci birilub ilimaan bu sa ilimaan dee biril yow nga wax pat yow nga ne pat bañ a wax dara loolu sunna ci yoonu Maalik ndax yoonu Maalik moom day jàpp ne addis ba wax ne njàngum ilimaan mooy njàngum maamoom ñoom foofu ñu sukkandiku nga xam ne ñoom sib nañu sa ilimaan li ba noppi yow itam ngay wax bu dee yàlla na sopp nga wax ci suuf ndax sam xel bañu nekk ci leneen summa radduhu topp ak delloom sulmul xalal imaam ci ilimaan ba wal yasaari ak ci càmmooñ ba wa ahadun te mbir moom kenn bii nekk na ci moom maanaam bu amee bu fekkee am na ku la doon jiite bu ñu sulmalee dañoo bëgg nga wax ndànk asalaamaaleykum jëmale ci moom donte nekkul ci sa jëf nit nga nekk ci catul sàppe sa moom mu nekk ci fa mu daan taxaw ca digg ba lu tey nga wax asalaamaaleykum donc junjoo sa bopp jëmale ci moom su ko defee nag bu la fekkee am na ku la féete woon càmmooñ te am na ci julli ga lu matub rakka kon nga wàññi bi ci sa càmmooñ wax donc asalaamaaleykum jëmale ci kooka sunna la bu fekkee kenn féete la càmmooñ nag mbaa ka la ca féete amu ci julli ga lu matub rakka kon doo fa delloo dara wasaidu sukoonin ak aji dollikuk dal lil xudóori ngir teewlu ga dañoo waxoon ne foo toll ne fa tekk bu cër yi dal dañu woon farata la waaw foo toll ne fa tekk bu cër yi dal gannaaw bu farata ji amee loo ci dolli nag ci dal googee loolu la ñu woon muy sunna sutratu xayri muqtadin ak satira si kudul aji roy xaafa kooku ragal na almaroora romb ga maanaam bu fekkee nekku maa moom kon benn ngay ilimaan mbaa ngay kenn koy julli kon boo doonee ilimaan mbaa ngay kenn koy julli te ragal ne mën naa am kenn romb ci sa kanam bala ngaa sëlmal kon sunna la nga wut satir satir dañoo waxoon ne lu mu gàtt gàtt day guddi ne ab xasab lu mu sew sew dijj ne aw yat wu dijj te nga fexe ba bañ a taq seeni sobe dañu nekk di yëngutoo ko dal bañ a nekk lu yéem luy tax nga di ko xalaat ci biir julli gi loolu nga samp ko fi sa kanam loolu sunna la ci yow boo dee kay jiite wala nga xam ne yow dong yaay julli bu la yoree fi nga julli kenn du faral bi tam jëru ko bu fekkee na ngay maamoom kon ilimaan bu lay jiite doy na la satira ak biral sëlmal bi maanaam asalaamaaleykum ji nga wax ko ci kaw bañ ko yelu ba tey sunna la kalimu tashahudi ak baati taaye ja maanaam taaye ci bopp def ko moom sunna la nga nag baat yi nga xam ne moom la nettali na ci boo xam ne Omar bun moo ko jàngale ca kaw min ñu koy dégg te moom la Malik moom jël ne am xeeti taaye ci lañ koy nettalee lu bokkute noonu moom daa wàññiwaale nga jël baat yooyu taayaa ko da ko wàññiwaale ci sunna yi am na ñu koy boole ci ngëneel yi wane ne nga defee ko baat yooyu moom nga ne looy agoo ci sunna am na ko ci wàññiwaale wa an yusalli ak mu julli ala muhammadin ci sayidna muhammad sallallahu alayhi wa alihi maanaam taay bu mujj ji mooy janga nar a sëlmal rek nga julli ci yonte bala ngaa sëlmal ba te loolu bokk na ci sunna sunna sunna leef na al adaanu li jamaahatin ñeel mbooloo atat moom dikkal na fardan julli farata bi waqtihi ci waxtoom wa talabat te mu sàkk mbooloo mi ma xayran keneen nee saa yoo xam ne julli jot na mbooloo moo xam ne ñoo tase ci garab penc wala feneen kon bu fekkee jàpp nañ ne buñ noddee dina am ku ñëw julli si wuy si leen ci woote ba kon daani sunna ci ñoom ñu noddu ba tey bu dee jàkka lu jàkka yi jege jege sunna la bu waxtu julli jotee ñu yëgle ko fa maanaam ñu noddu xam ne ne waxtu yu jot na waaye nag julli goo xam waxtoom te door a jot moom la ñuy noddal bu dee julli gu ñuy fay kenn du ko noddal bu waxtu wa demee ba sore ba nga xam ne boo noddee ñu defe ne ku julli woon defe ne moom daa juumoon te fekk na juumutoon ba tey loolu kon na koy bàyyi bu dee mbooloo moo xam ne yaakaaruñ kenn ku ñëw ànd ak ñoom te tukki wuñ boole ci nit ki ñu ñu tëj kaso mbooloo mu ñu tëj kaso xam ne bu noddee kenn ñu fekk leen ci kaso ba kon ñooy lus na ci ñoom ñu nodd waaye na jàppal ne képp ku génn di tukki te bu ñuy tukki kat dem tool dong ci la moo xam kenn la moo xam mbooloo la bu xasee génn rek moo xam tukki bu wér la moo xam tukki liggéey ci àll ba la daañu sopp saa yu ko waxtu ji lu jotee rek mu noddu doonte xam ne ni sax kenn du ñëw ànd seeg moom du tee loolu sopp nañ ko wa qasru man nga xam ne wa qasru saafara nar naa tukki arbaxa burdin lu toll ne ñeenti barit mu wàññi nag jibran tisbaar xichaa ak gee xasaran ak takkusaan ilaa xiini yahuudu ba waxtu wa muy dellu mun maa war sukk naa tàmbalee ci gannaaw dëkkuwaay ba bokk na ci sunna yi boo dee tukki tukki boo xam ne mat na ñeenti barit nag tolloole yi daa wóoti waaye am na tolloole ci soixante-douze kilomètres juróom-ñaar ak ñaar am na wax sax quatre nangam tollu daa wute waaye daal soixante douze kilomètres wax nañ ko ba tàyyi noonu bu fekkee la ngay tukki mat na loolu kon la gën mooy lay sunna mooy julli yi matan ñeenti ràkka nga di ko julli ñaar dong te mooy tisbaar takkusaan gee suba dee su ko wàññi timis dee su ko wàññi fan ngay tàmbalee mooy min maa war a sukk naa ak bu dee dëkk bu mag ngay dem ba weesu lépp dëkk bi nga xam ne genn kër féetewul ndeyjoor mbaa càmmooñ chamo benn kër bu ci bokk itam ci dëkk bi ci sa kanam bu amee kër gu ndaw wala dëkk bu ndaw bu sës ci dëkk bu mag bi xam ne foofa lay liggéey si marché fa lay walloo si itam da nga far boole ci dëkk bi an bala ngaa sañ a wàññi dem boo weesu ko nekk daaru sàll gii ci boo jëmee yoonu Touba wala pël googu nekk ci yoon yi ba awee yoonu cilmaxa te bàyyi ko fii ci daaru Moxti yëpp nag wala ngaa wàññi da nga koy weesu far ko boole ci dëkk bi rek benn in xadima ilayhi ba ci moom yuttimmu kon dana matal nga fi yuttimmu ñaari yoon bu njëkk bi danga koy def yuttimma kon nga ñu ko wax in qadima ndéem ñibbi si na ilayhi ba ci gannaaw dëkkuwaay ba yuttimma kon mu tàmbalee matal nga delluwaat ne muqiimu arbaxati ayaamin aji yéene sax ñeenti fan ba tey yuttimmu dana matal hmm, daa wax ne fa nga tàmbalee woon na wàññi boo ñibbisee ba agsi foofu fa ngay tàmbalee matale fi la ne woon fa nga tàmbalee wàññi booy génn tukki rek xamal ne boo ñibbi boo ñibbisee bi jeex na ngay tàmbalee matal ba tey ci béréb te yéene faa sax ñeenti fan dangay matal ba nga fay bàyyeekoo wax ñu seet fa nga jëm nag ba xam mat na sarti wàññeem déet su ko matalee nga wàññi bu ko matalewul nga wàññi bu fekkee bàyyeekoo nga foofa ñu seet fa nga jëm su fekkee mat na sarti wàññi ngay wàññi su fekkee matu ko ngay matal man doobu xaalu ñu soppi julli te yaa mënoon mooy ndeyjooru maxa ah salaami ànd ak sëlmal wa bokk na ci ngëneelu julli xam ne sàmm ko li tax surtout yaa bëgg na bari boo dee wax asalaamaaleykum boo ne asalaamaaley ba mu des kum kum ji nga xaw a bu mooy tuuti ci sa wetu ndeyjoor kum ci sa wetu ndeyjoor bokk nekkoon ci sa gannaaw seen sa pegg loolu ngëneel la te amiinu man waxuk aminu ka nga xam ne salla julli na xadaa jëhril imaami ndare biralu imaam képp kuy julli bu waxee wala daaliin ñu sopp mu wax amin bu dee yow dong moom daañu ko sopp saa yu nekk moo xam ne nga yel moo xam ne ngay biral waaye na ci suuf lañ koy wax bu dee ci yoonu Maalik kenn ko yëkkati am na ñu koy yëkkati nag loola seen yoon la ba des nag boo dee jiite tey biral boole ci boo dee jiite tey biral moom doo wax amin ngay bàyyi maaw wax ko ndax am na nga dégg kilifa gu mag tey borom xam-xam boole ci moom muy jiite ba noppi ni waa Màkka yi wax ko ci kaw waaye loolu seeni yoon la bu dee yoonu Maalik daal moom boo dee jiite tey biral moom doo ko wax wa qawlu rabbana laka alhamdu ak wax rabbana yow sunu borom laka ñeel na la alhamdu cant ga dañ ciy boole waaw sax rabbana wa laka alhamdu wax loolu nga neen la xadaamam rek nga xam ne am na jiite na maanaam kay jiite moom du wax benn yoon rabbana walakal hamdu boo dee jullee dong danga ko wax boo dee jullee dong gannaaw boo waxee samiha allahu liman hamida danga del waxaat rabbana walakal hamdu xam ne rek nga wax boo dee jullee dong ba te boo doonee maamu am ku lay jiite bu ilimaan waxee samiha allahu liman hamida nga daal di wax rabbana walakal hamdu mbaa nga ne allahumma rabbana walakal hamdu waaye boo dee jiite nag moom doo ko wax benn yoon ngay wax rek samiha allahu liman hamida soo dee jiite maamum nag mooy wax rabbana walakal hamdu ci yooyu jamono wal xunuutu xunuutit ba daa feeñ na fi subhi ci suba xunuut ba tey ngëneel la dañ koy sopp nga def ko ci jullit suba jullit suba doo nga ko am bu dee ci yoon Maalik tas rakkam ñaareel la ko amee te gannaaw boo jàngee Faatiha ak saar la koy am te dañoo sopp itam nga yàlla ko wax ko ci suuf ca bala ngaa ko boole ci am nañu nangu nag lik ibnu Habib nga rëkkoo ba siggi dara koo def waaye liñ gën a sopp daal mooy bala ngaa sugg rëkkoo nga koy def ridaawun ak làmbaay làmbaay moom mooy bu fekkee da ngay julli nga wut lu mel ni sarbet wala kaala teg ko ci kaw teg ko kaw kaw say mbagg loolu képp kuy julli sopp nañ ko ci moom ah, bu dee bu dee yaay jiite nag ba noppi muy jàkk daañu sib nga jiite jàkk ba noppi defoo ko dina ko wax ci anam tuuti waaye képp kuy julli moom sopp nañ ci moom làmbaay boobu wa tasbiixu sujjóot ak sàbbaalu sujjóot ba war rukkoo ak rukkoo maanaam booy sujjóot ak booy rukkoo li ngay wax sàbbaal boobu dañ koo sopp booy sujjóot subhaana rabbiyal a'la mooy sàbbaal ga booy rukkoo subhaana rabbiyal azimi wa bihamdi booy rukkoo amul ñaan booy sujjóot nag soo nee subhaana rabbiyal a'la dolli ci allahumma xfirli allahumma xfirli yàlla yàlla ma jéggal ci ak ñaan la subhaana rabbiyal a'laa ak sabal la bu la neexee jàll fa ñaan ñaan gudd nag ñu toog ci sa ci sa bu dee yow dong foofu fi la jaam bi gën a jege boromam ci bu sujjóot noonu ko defee kon mën nga faa ñaan bu baax waaye rek amul ñaan moom sabal rek la am da am saddlu yadin ak yoor loxo yoor loxo mooy bàyyi see loxo mu wàcc bu ci yoonu maali wi nekk boo dee julli julli farata dañuy sib nga ñëpp say loxo maanaam nga jël say loxo moo xam ne ngaa jël bopp ndeyjoor jàpp ko ci bopp càmmooñ teg ko ci sa dënn mbaa ak foo ko mën di teg rek bu dee julli farata koo xaw a niroo léegi wéeru da nga ci boo ko defee bu dee naafile na moom dagan na ca nee nañu waaye waaye bëgguñu ko julli farata ñoom nag loolu mooy seen gis-gis doonte gis nañ ci addis mu mel ne waaye ñoom loolu mooy seen yoon takbiruhu ak kabaram maxa shuruhi ànd ak tàmbali ba man nga ne takbiruhu ak kabaram maxa shuruhi ànd ak tàmbali ponk ba maanaam bépp farata booy tàmbalee def rek dangay bëgg nga tàmbalee waxaale allahu akbar nga boole jëf gi ak wax gi niki boo tàmbalee sëgg di ko daal tàmbalee wax allahu akbar fa saasa te bàyyi ba ko ba noppi wax allahu akbar boo sëggee tàmbalee sujjóot ba ngay tàmbalee sëgg rek ngay tàmbalee wax allahu akbar xam loolu ngëneel la ci julli wa baxda an yaqooma ak gannaaw ba mu jógee min wustaahu bàyyi ko ci taaye diggam mu des nag boo amee ñaari rakk ba jóg jëm ci rakkum ñetteel foofu de moom taw moom nga tàmbalee jóg daal tàmbalee wax fi saasu allahu akbar dañoo bëgg nga bàyyi ba jóg ba taxaw jon door wax nag allahu akbar kon foofu rek nga teelu ko wa xaqduhu akuk bankam ak salaasa ñetti baaraam ña min ñum naahu ci loxom ndeyjooram la dat tashahudi wa bastuma xalaahu ak tàllal lu bokkut ak moom taxriiku sababatiha ak yëngal baaraamu sànnikaayam xiini talaahu ci waxtoo muy jàng taaya ja ene boo dee taaya dañu bëgg sa baaraam yi ci loxob ndeyjoor nga bank ñett ñi maanaam bopp songaleñ bi ak bu sës ci moom ñu koy wax ndombur ak bu diggutu ñett yooyu ngay bank tàllal ñaari des muy bopp sànnikaay ak bopp doy bopp doy moom danga koy tàllal rek waaye doo ko yëngal bopp sànnikaay bi nag ndax da ko yëngalam déet wax ji gën a mooy waaw bu dee ci yoon Maalik moom da nga ko yëngal ñu bàyyi ko ndeyjoor jëm càmmoñ doonte sa taay daa àgg te ilimaan taayam àggut it yow dee ko yëngal noonu rek loolu daal moo gën a dëgg ñoom ci seen yoon ñoom waa Maalik di yëngal baaraamu sànnikaay boobu ci diirub sëlmalagoo wa rijaalun aw góor yu bëri doon danañu solal albatana biir ba min faxtin ci lupp waa mbir faqan daañu soril conca nim ruk batin ci bëti woom id yes ju doona ba bu dee góor dañoo dëgg bu dee julli bu dee sujjóot day yàng cër yi nga xam ne léegi biir bi day sore lupp bu ko defee conca yi sore bëti yi pare yi sax sore poqtaan yi xam ne moom daal bu dee góor moom loolu sax bu dee jigéen nag moom loolu risaala waxam na ko li ma bëgg bu dee julli mel ni ku lem ay cëram maanaam cër yu jege te bañ a sore bu dee góor nag moom li lañ ci sopp mooy cër yi day sore wasifatul jullees ak melaw jataay ba am na jataay boo xam ne boo dee toog diggante ñaari sujjóot wala ngay toog di taaya sopp ko jota melaw jataay boobu nag mooy sa njekkikaay àgg suuf nga xam ne toogoo ci sa benn tànk say tànk itam nga génne ko ci wetam ndeyjoor te bañ ko génne ci wetu càmmooñ bu ko defee nag sa tànkum ndeyjoor nga yëkkati ko baaraamu day ba samp mbaa wetu baaraamu day ba samp tam kii yëddi ak dëgëral loxo ba ñu mu rëkk ba tey ci ñaari bëti ci rëkkoo ba maanaam boo dee rëkkoo nga jàpp ci say say bëti bu dëgër loolu ngëneel la bu la nee rëkkoo farata xamal ne kat boo xasee sëgg ba say loxo jege say bëti rek maanaam say tànk jege say bëti woom rek rëkkoo ngoog fukk am na farata ji am na waaye nga jàpp ci bët yooyu bu dëgër nag waaw loolu ngëneel la wasit na nga dolli mas baxuma seenug samp nga samp ñaari bët yoo mi mooy dara ay dangay dij bët yoo mu dijju bu baax a baax xiraatu ma amoom yi ak jàngu maamoom fii sirriyatin ci jullit yeloo alxam bu sa ilimaan dee baar niki tisbaar mbaa takkusaan mbaa rakka bi mujj ci timis mbaa ñaar ñu mujj ci gee dañoo sopp yow maamu ngay wax ci suuf ndax sam xel bañ a nekk ci leneen hmm. wadduxul yeddañ ak teg ñaari loxo ya bu fekkee danga atta feenal ngay wax ni wasit na nga dolli nas ba xumaa seen mu samp su ko defee mën nga ne xiraa atal maamoom mi fii siriyatin fii te bu la neexee ne wadduxul yeddañ ak teg ñaari loxo ya faqtahil nga xeeñtu la des sujjóot yi fa sujjóot ba xadra udhunin fa tollooku nopp maanaam boo dee sujjóot nga teg say tëng fa tolloog say nopp ah, loolu sopp nañ ko dama bëggoon loxo yi sori ci gannaaw loolu ba ni nga bëgg yàgg ci sujjóot doo ko fa mën a yàggee nga bëgg loxo yi ñëw ba dent ak tolloog say nopp ak saa niki ni rafon jadeen yëkkati yaari loxo yi xindal ihraam yi fa armal nga xutan nañ ko jàpp allahu akbar bi nga ñu ko wax ci julli nga yëkkati say loxo ba mu tolloog say nopp mbaa ba mu dox diggante nopp yi rek mbagg yi waaye ah, yëkkati loxo yooyu lu ñu sopp la boo waxoon allahu akbar te defoo ko danga bàyyi ngëneel rek tatt li defoo ak guddalam subhan suba wa jëfuran ak tisbaar suuratay ni ci yaari saar maanaam boo julli suba wala tisbaar te mu yow dong mbaa nga àndul ñëpp xam nga ne bëgg nañ julli bu yàgg kon taamu nañ nga jàng ci saari guddi yi saari guddi yi nag moo tàmbalee xujuraat benn ci ba ci xabasa benn ci guddi yooyu waaye bu fekkee da jiite mbooloo moom nga jàng saari gàtt yi rek ndax day bari ñu bari ngànt moo tax tawassutul xisha ak diggu doomu xanaa boo jullikee sopp nañ nga jàng saari diggu doomu yi diggu doomu nag mooy tàmbalee sorut xabasa benn ci ba ci sorut duxa wa qasrul baaqiyayni ak gàttal ñaari ci des yaari bés mooy takkusaan ak timis ñoo bëgg saale nga ci jàng gàtt yi gàtt yi nag moo tàmbali soratu duhaa mi moo waxoon léegi ci diggante boobu boo fi jàng rek saaru gàtt la ka sorit ni saar wa al uxraa wa ca des dafa jublu mujj wa maanaam sopp nañ faawu saar wa ngay jàng ci ràkk ba mujj muy ràkkam ñaareel mu gën gàtt saar wa nga jàng ci ràkk bu njëkk tàmm nañ faaw rek saar wa ngay jàng ci ràkk bu njëkk di di gudd saar wa ngay jàng ci ràkk bu ñaareel kazaalika ni alwusta taayu digg maanaam taayu digg mooy taayu ji nga xam ne roccee sëlmal jooju sopp nañ mu gën a gàtt mooy ji nga xam ne roccee sëlmal moom taayu kese lay am du am julli ci yoon te du am ñaan taayu ji nga mën a sëlmal nag moom dañoo sopp nga ñaan ba noppi julli ci yonent bi tam muy sunna boole ci xam ne julli ci yonent bi mooy jiitu doon sunna gannaaw taaye ji nga tekki nag ñaan dooru salmal astox yi ba soppeef na sopp yedin jiital loxo wadda xam ci ak bi ak jiital buti woom ja bi ci kaw di ñëw jëm bi loxo mooy ñëw ba ci kaw nag say buti woom moo njëkk yëkkati ko waaye boo bàyyi ko ci kaw di ñëw moom say waxu day ñëw ba a sukk batiwoom yi boo di jóg nag moom batiwoom njëkk a yëkkatiku nga mujj yëkkati loxo yi gannaaw ba mu waxee yi ñu sopp ci julli nag mu daal kon ñëw ci yi ñu sib mooy yi nga xam ne soo ko moytoo ñu defal la ci tuyaaba soo ko defee itam nag du tax bàkkaar war la ca wa karihoo sib nañu basmalatan wax bismillahi taxaw widan ahoudu billahi min asheytan rajim fil fardi ci jullik farata na bu dee ci yoonu